asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax fii ci Touba Michigan Detroit xam ngeen ni euh, ànd kaag kon euh, mboolem mbokki taalibe yi nga xamante ne ñoo nekk si gox bi waaye gox yi ko war yëpp ngir nag euh, tey bis bu am solo di bisu jaalibatu maraaxi bi di bis bi nga xamante ni moom mooy bisu xasida bi kuréelu jaalibatu maraaxib di di di di taxawu di nag soppe yi Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Chouaïbou bu yàlla na sunu borom eh, yàggal ko fi loolu te mànd ak wér xam ngeen ni eh, bis bi ñu koy def at bu jot ren ñu koy defee fii si Touba Michigan di Troy mbokki taalibe yi jóge fépp nag daanaka si biir États-Unis d'Amérique ngir ñëw fekk si bis boobee waaye te eh, jóge ba Sénégal jóge si ay dëkk yu faram-fàcce ko si àdduna bi ngir ñëw dundal xasaayidu Serigne Touba Xaadim Rasool yi wuy si wooteeg kuréel jaalibatu maraaxib bi nga xamante ne ñoo féete fii kon ci États-Unis d'Amérique di leen ziar bu baax a baax mboolem seen si kanam incha allah mboolem jëwriñ yi dinañ séq ak ñoom waxtaan wan leen ni nga xamante ne moom la ñuy dundalee bis bi tey ji incha allah fii kon si Touba Michigan Detroit ni ñu ko waxee di ziar bu baax a baax sëñ Ndiaye xasida mi nga xamante ni xam ngeen ni mooy loxol Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Chouaïbou maanaam Serigne bi yebal ko fi mu daal di ñëw ngir taxaw liggéey bu am solo boobu di ko ziar bu baax a baax a baax a baax ak mboolem mbokk yi jógee Indianapolis sëñ Dame Lo duñ ko fàtte mboolem mbokk yu jógee Touba Cincinnati mboolem mbokk yu jógee Columbus Chicago fépp rek mbokk yi incha allah kon woote nañ ngir xasaayu Serigne tubaay yi wuy si nañ leen danañ ko yaatal léegi léegi mu soobee suñu borom ànd kon dugg si biir wan leen lii xew fii si biir kër Serigne Touba gi ak mbokki taalibe yi di ko dundal si alquran ak xasaayu Serigne Touba yi xaadim rasul ak zikrullah jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall. عزاء لمن عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باخيا لي كنت بالمامول يا من بي ينخاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وصل من عليه في الآل وفي أصابي في الآل ثم ما يفي يا من بي لم تنون الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصاب بالتسليم والبركات خذ إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصام ذوي الصيانة مع سلام وكفني خيانة يا رافعا لديك يذكر العمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصام ذوي التورع مع سلام والدخل أمرعي إن شاء الله مبكي yi bu baax دي آه، سنتات سرين تبا Serigne ci bés bii nga xam ni ñu ngi ko tàmbale woon première édition fële ci Savannah mu mel ni ren ñu ngi ko woowe fii ci Detroit Michigan eh, njub ndigal gi tàmbali woon ñu jëlee ko ci sëñ Amsatu Mbàkke moom sëñ Sohaybu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di santaat bu baax a baax ndax eh, liggéey bi ban koy tambalé ak suñu jëwriñ seen rijal danaka mën naa ni ñetti nit la woon bo ba tay ñuy gorlu bu baax di ci dox ci liggéey bu baax ba ji euh ñu koy défé fi ci Detroit di ci santat yalla bu baaxa baaxa baax ñi ñaan sunu borom ñu féké ko waat ay déwén yu bare bare, bare. bari eh, ci barke sëñ Amsatu Mbàkke di ko ñaanal moom mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaanal mbokki taalibe yëpp. ah sëñ Aliou ñu ngi lay ziar bu baax tey tuubal baax eh, suñu jëwri ñu dand dool suñu kilifa gii nga xam ne suñu jaay xasida nga xam ne mooy suñu lépp ci xasida yi taxaw ci ñun taxawaay bi suñu am satu jii ñu ngi ñu ngi doog ngant ci yëkkati gàddu ci kanamam ni ko jëwriñ suñu Murtala waxee doy na sëkk daanaka warul ci woon teg benn baat ndax ñun dañuy ay daanukat daanaka wax dañ koo xawatale lool te bëgg roy kilifa gi ñu àndal ci dox te noppi muy sëriñ Amsatu Mbàkke yàlla na fi yàgg te ah, li ci jiitu mooy di jot di ko jottali ak cant goo xam ne ñu ngi ko yón yóbbante ci mbooloom mépp rawatina mbooloom jaalibatu mi nga xam ne ay tut tànk rek ko seq nga xam ne mbooloo mu lan waaye di borom pësteef yoo xam ni boo leen déggee ñu ñu jóg da ngay yaakaar ne junni nit a jóg te lii nga gis ci kaw rek daanaka ñoom la waaw kon seen pësteef boobu sëriñ bi gis na ko bu baax baax te leen di ñaanal taw fexi leen mu mel ni ko sëñ Mourtala waxee rek sant sant sant sant sant sant rek nu war ndax ñetti nit a ko tàmbali woon daanaka ci mbooloo mu néew waaw 2017 eh, lañ ko tàmbali woon ci Touba Savana eh, ren mooy juróom-ñaareelu édition bi ah, te na ni mi ngi yokk bu baax a baax a baax a baax mi ngi yokk bu baax a baax a baax yokk goo xam sax danoo danoo yéem ñun ñëpp te li ci gën a yéem ah, tey borom pas-pas rek doy na sëkk waaw daanaka daal dañoo mënta dañoo mën dañoo mënuli wax waaye dañoo bëgg na rek ci li ci li nga xam ne gannaaw borom Touba kenn du ko wut am ko la sëñ Xaadim Thiam mais wax dañ koy wut ba dee moo tax fu ne rek nu ko fay nu ko fay nu ko fay dàkk waaye daal di daal di farewoon nag xasida yi te te ñeme féete lool nag waaw ñeme féete gi lool di ko làmp fu nekk rek xam naa daal foofu lay jéem a tënk kaddu yi di ñaan sëriñ bi nangul ñu tàggatanduñu ñu jo waaw nii rek xasida ak alxuraan yëkkati xasida ak alxuraan ba ñaan jot rek ñu ñaan ñi joy joy ñi nan kafe nan kafe ñu daal ñu daal yewé ko <laughs> na lool lol daal moy moy moy doxinu bis bi wa légui xamna li ci dess mom suñu xasee dina ko mën dina ko sant nag bax tay sant nak tout tank yi ñu andal waaw di ay borom passef yo xamni doxinu mag dox waaw mang koy séral sëñ Tuubaa ni ñi bu del ci dellusiwaatoon waaw goor rek lañ leen wax waaw ay jambar ngi nii jàmbaar yoo xam duñu sonn duñu tay waaw ndax nun ku ku ànd ak ñun ñaari fan dong jàmbaar nga ndax dañoo dañoo eh, bari histoire lu ne rek waaw waaye daal ñi ngi sant rek ñi ngi sant tey ñaan sëriñ bi gàttandu leen boppam tëj leen boppam barke mboorum xasida yi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di jaajëfal sëñ Aliou Badara Ndir ci liggéey bu tedd bi nga xam ni eh, ñëw nga teewe ko eh, te fas yéene koo yaatal yaatalal ko Sëriñ Tuubaa ci liggéeyam bi ñu ngi ciy ciy jaajëfal ak ñi nga ànd liggéey bi yëpp kon fi ñuy tàmbalee suñuy kàddu rek damay sof ci jëwriñ yu tedd yi fi ñu bàyyee tàmbalee suñuy kàddu ci sant yàlla suñu borom mi nu jagleel ñu féete cheikhul xaddiim ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax santaat cheikhul xaddiim ci cër bi mu ñu cërale ñun ñëpp mu xiirtal nu ci xasidaam yi mu doon sunum xëy ak sunum ngont kon noo ngi sukkandiku foofu di ñaanal cheikh mouhamadul muntaka suñ borom yàggal ko lool te wéral ko ci barkeb xasida yi noonu lañ koy ñaanal tamit njabooti sëñ Tuubaa yëpp xanaa di delluwaat di beralaat ay cant ak i ngërëm ak ñaan yoo xam ni moom euh, murit boo gis muy dox rek te xasida yi doon yitteem wala lu baax rek guddi ak ba mi ngi koy yéene muy suñ jàmbaari bopp ji sëriñ Hamzatu Mbàkke moom suñ chong bi ci pëstéef bi ak taxawaay bi ci xasida yi sëñ Tuubaa yi rawatina nag xasida yi nga xam ne moom lañ sàkk bis bi di ko def di xasida ak jaalibatul maraaxib sànq rek ni ko sëñ Mouhamadul Mourtada mi cuun bokk ci jëwrinam yu tedd yi ak sëñ Rijaal Géey mi ñu séq liggéey ak ñu ko séqal ñëpp seen pësseef ak seenu dëggu tax ñu taxawal lu toll nii ci ci ci ci dëkk bu tedd ci dëkk dëkk bu mel nii euh, li ci gën a dal xel nag euh, sëñ xaadim Thiam mi sànq bi muy jàng euh, moom it ginnaaw bu li ma wax ci ñoom sëñ Mouhamadou Mourtada ñi mu ànd ak ñoom liggéey bi ba tey ak ñi ko seqan ñëpp fi mu tàmbalee jaalibatu bi muy tijji daa fekk mu yor jukkib jaalibatu bi di jàng waaye daa daay bira jam wali adim ridaka ma jamaa eh, fi sëñ Tuubaa di wax ne yow sa borom nang ma saxalal sa ngërëm maa ngi mbooloo mi kon rafet nañ jot ci bis bi ne moom bis la bu sëñ Tuubaa gërëm eh, kon foofu munuñ munu mën nañ fee bañ a sori wali adim ridaka maa jamaa su fekkonte ne lu ñu listixaar la bis bi rafet nañ jot ci ne maanaam ngërëmal sëñ Tuubaa làmbool ndax eh, daa ibbi rek yam ci moo tax mu mu mu tàmbalee ko kon nag loolu ñu ngi ci santaat sëñ Tuubaa bu baax a baax tey ginnaaw bu ñaanee sëñ sëñ mun Mountakha ñu ngi ñaanal sëñ sëñ Hamzatou Mbacké suñu borom yàggal ko te wér ko ndax lii yëpp tamit ab liggéey ma xooma gën xasida de waaye jaalbatu maraax mii de ëllëg bu ko sëñ Tuubaa fay li mu fay jullit yëpp mën na leen a xettali ndax xasida la goo xam ne ñu ëpp ci murid yi seen kumpa taxoon na wala seenu ragal ak seenu wattandiku taxoon na yaakaar naa lu lu lu weesu 2000 rek kenn ko kuñ mas gis nga di ko jàng rek daanaka mën naa wax yaa ku ñuy tooñ la ñuy yamale te dara sababu ko lu dul li ci sëñ bi doxee ciy njariñ ak fi muy yóbbu jëmmi doomu aadama bi loolu mu ne wa bi kitaabati rabbi ku la mu taanañ di wa ci rabbi képp ku koy ku koy ku koy jàng ngir sama jëmm yow suñ borom nang ko nang ko nang na képp koo xam yaa ngi jàng jaalibatu ngir jëmmi suñ borom yow suñ borom nang ko ci tërbiya cheikh khadim lol la wax ci ci téere bi nga xam man na wax ne bo doon xol xësida go xam lol mom ñepp mat kenn ko ne man nga ko nat ci sa bop xësida go xam ko ko dapato sa xel du jëg ci sëñ touba boko ko dee wër jàppal ci jaali bët يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قال لي نماء مع سلامي يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد والطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير رهبي واصل بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفعي ولتغنيهم بك عن المعاصي ولتكفي ضرر كل عاصي صل على البالغ روح الحق مع سلام قائل للحق وآله وصحبه وامه جميع ما سأني في كلكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وذي التحصيل وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرام به وللناظم قد مرام يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم بآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الراغب وسلم عليه وعلى آله وصحبه واهل بجاه جميع المراغب لكن بوتم خسرين ما أنت سيطان والماسي نبي أنه من بلا إنجاز

وليا سادة النارين وابلنا نور على نورين وإن بك دفن سادة النارين وابلنا نور على نورين وإن بك دفن سادة

يا من جل من قودي إرم يمن ورايا هاني بدنوي ما بلاخنا خير الدين بجاية كلمة الله يتم جاي ومن نور على نور وليا سادة داري ومن نور على نور وإنك لفن سادة داري فلو بكي قلب سبع تمام maam borom Tuubaa nee na dégg ku ne yàlla yónnit ba ak seen baay Ceerno tey maam borom Tuubaa dal na julee fa dem njaareen jiite na jumaay soga dem ay ma di Ceerno faati ay ma di Ceerno faati di ma ngi si di jaawaat sëriñ Ceerno ma samba sëriñ Ceerno ma samba suñ góor ga demoon géej suñ góor ga demoon cey ma borom Touba de son je konteji tey ñu taram naan yi Cheikh Bamba jërëjëf Cheikh Bamba jërëjëf dafa ñëpp ma faal jaaram boobu la ñëpp maam Cheikh Ibrahima xam ne ku koy jàng doo fàtte sëñ Tuubaa foo mën a nekk di yëg sëñ Tuubaa loola mat naa sante kon daa mel ni ab neexalu sëñ Tuubaa la ci biir xasida yi tamit ba tax ñu taxawal ko bis bii xañ na eh, eh, eh, jataay bi ni mu bindoo la moo tax te dañ doon sànni kàddu yi cant ak ak ak ak ak ngërëm kon nag ñu xam ne liggéey la boo xam ni sëñ Murtada sëñ Rijaal yéen a gars yi sëñ Hussein noonu ñëpp rek yéen ñi ko séq ñëpp na ngeen xam ni yoor ngeen liggéey boo xam ne day fii mu tegu ak defin nii nii nii mu tëdde li fii ak ñu koy fonke nii di ko jàppe nii barke xasida yi fa mu jëm mën ngeen koo bañ a xam mën naa dem ba daj Amérique yëpp ak feneen fu dul Amérique ndax daa bokk ci photo xaati Cheikh Khadim yi maanaam damaa dafa mel ne day message sëñ Mourtala da ciy jàll da ci da ciy jàll ndax lii lépp moo ko ibbi te loolu ku ku ko xool da nga gis ne jamono bii gis nga lii dugg ci biir réew mi ak ni ñuy duggee lu kenn musta a foog loolu na ngeen xam ni yéen am ngeen liggéey bu rëy rëy rëy kon dama ciy profité fépp fu fi taalibe ne ak foo mën ne te nekk ci dëkk bii te jiitu fi gan ñii ñëw na xam ne gan ñi ngeen di am na ngeen xam ne ndaw yi sëñ Tuubaa lañ man noonu laa ko noonu laa ko gëmee ndax dana am danañ ci gis ñu mo wattu alxuraan man xasida fees dell ak bëgg sañ Tuubaa dinañ ci gis tamit suñ mbokki jullit ñoo xam ne tamit ñoo bokk lislaam donte bokku ñuy pas-pas bu boobaa nag yéen ñi nga xam ne yéen lañuy ñuy fekk si ci dëkk bi ak ku mu mën a doon nga nekk ngir yàlla na nga nangu loola te xam ne lii mën naa am dañ fee ñëw ngir wut si waaye ni ngeen xam ne luñ war a liggéey yàlla ci nit ñi la kon kenn ku ci nekk na ci def yitte bàyyi ku bàyyi ci xel ibbi ku ci ku fi mën a ñëw na ngeen xam ni wërta tumuranke yéen yéen yéen a ko war a tatagal yéen a ko war a ko donte xamul leen ko sax am na lu leen waar seen digga moom ngir jëmmi sëñ Tuubaa liggéey di sëñ Tuubaa ndax loola bu saxee ab di liggéey bii ñuy def des na tuuti dootul xaj ci saal yi ndax ñooñu dañ fi nekk kon man misal bima ci am ak yeg yeg bima ci am seigne khadim ci am yi bërki dem rek ni ma cey fatali yeg yeg bima ci setantal bima ci am moy dafa mel ne makkatul mukarram ba fa yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam di wote wote bu jek ba tan ci dal lor juliti ak seeni jafe-jafe ñu mujju di suñ borom jox ko ndigal mu mu gàddaaye makkatal mukarram jël madinatu munawara lii sëñ ba huwa lazi haajara lil madina bi izni rabbihi fasaana diina suñ borom ne ko digal naa la nga gàddaay Makka dem Madinatu Munawwara loola kenn ku ne xam nga bi yonent sallallahu alayhi wasallam bi génn di dem ginnaaw ba jullit yi ñi ci mën a eh, eh, eh, def hijra jóge jóge jóge Makka dem Madinatu Munawwara sallallahu alayhi wasallam dafa sant al ansaar mooy ñi nga xam ni ñoo nekk Madinatu Munawwara ne leen ñoom nañ ibbiku nga xam ni da leen doon seexale ndax rawale seen pas-pas moo taxoon ñu jóge màkk di ñëw madinatu munawara mbokkale yooyu mu leen seen mbokkale ñi ci yoroon ñaari kër dañoo jël génn kër jox ko seen mbokkum uh, muhaajir koo xam dafa jóge màkk ñëw madina am na ci ñoo xam sax yeggoon nañ ci seeni ci ci ci ci ci ci seeni seeni njaboot uh, di ca joxe yooyu yëpp histoire saxal na ko ci taarix kon nag xañ na loola ndigalul suñ borom la woon ñu santoon ko yonent mu di ko def waaye fii may wax yow donte lee ñiy jóge ci réew yi di fi ñëw fii di fi dugg si li leen tax a jóg xañ na wut teraanga ak sutura la te murit bu mu ci mën a doon wala jullit bu mu ci mën a doon bëgg na sutura ci njabootam ndax fàggulu leew loo dundee si njaboot dafa bokk ci ibaadaat yi nga xam yi gën a kon ñiy bàyyi seen yitte yëpp di fi ñëw na xam ne loola mooy li leen tax a jóg bu dee murit yi nag nga xam noonu xusuus lañ ci am muy ak jagle mooy nañ xam ne ña fa bàyyi ko di dugg si fii ci réew mi kenn ku na xam am murid ñaari yitte rek moy yitteem adiya ak jël loolu rek moy moy yitte murid bo gis muy dox loolu rek moy moy moy moy moy bëgg-bëggam kon nak nang yéen ñii nag yoon ngeen ci liggey bu reey reey reey ndax ab liggey la bo xamne fepp la wara tass ci mbollem eh, eh, barab yi nga xam ño nek ci reew mi mo xam ño yori dayre wala dara ñu fexé ba ñen ñu ci nek fañ nek ñu nosu di baye xel loola ndax tumuranke yi xaj na ta mën naa bari waaye loolu du law fi ne buñ doxee lu mat at ak wala ñaari at tuuti rek fi ne kenn ku ne dana am fu mu ne bu boobaa nag buñ amee ñu leen ñu ñu ñu ñu ñu leen dëkkoo ñu leen jàppale moo xam ci wàllu ku ku xiif la wala koo xam dañ koo gis ci mbedd mu nar a tumuranke teñ am cam pexe te loola charte réew mi du du du indi jafe-jafe boo xam ne day indi euh, maanaam lu luy yàq loola tamit dañ ko ciy bàyyi xel ndax fii xañ na bokkut ak Sénégal waaye nag lu ca waay man boo amee yéene ji woo ci sëñ tubaa ngir jëmee sëñ tubaa liggéey ci sëñ tubaa gëm naa ni ñun ñëpp sëñ tubaa danoon defal sutura ba liñ bëgg ñu am ko loolu nag message la boo xam ne damaa naroon a euh, euh, euh, sëñ Aliou keroog bi ma wax bëggoon naa beru ci wet wax ci lu yaatoo yaatoo yaatu waaye nag ndegam jataay bi dafa dafa bette faaw nii rek lañ ko mën a defee kon nag maa ngi koy delluwaat di ko waxaat bokk na ci ñu gën a ñor ci jëmm bis mooy ñiy jóge ci réew mi di fi dugg si nañ xam ne ay jullit lañ ay taalibe sëñ Tuubaa lañ te addiyaay ngir rekk leen tax a jóg kon fu fi waay mën a nekk te nga doon ab sénégalais buñ la woowee téléphone na nga jël nit moom ñaar rek ay am wax ko lu dalum xelam wala nga mën a jëflanteeg moom loo xam ne xelam dana dal waaye bu kenn daw kenn bu kenn ñooru kenn ndax ñii ñëw it ay alali sëñ Tuubaa lañ kon loolu euh, wet googu loolu lu ma lu ma lu ma bëggoon a lu ma bëggoon a yaatal la te bu boobaa liggéey yii ñuy def lu ci ëpp dana gën a mën a dox dana gën a mën a ñoŋ ndax ndimbal yi ñu ci soxla kon damay bañ a guddal ci fànn googu xañ na mën naa am mën naa am mu gën a mu gën a yaatu kon maa ngi yemale fa waaye li ñuy def daal mooy noo ngi sant suñ jëwriñ yii ak gaa yu baax yii ñoom sëñ Ousseynou ñi ñëpp man sama dikk fii fii euh, sa sëñ wàdd mii ak eh, sëñ xalil ak fii moom daanaka su su dëkk yu bari bari bari dañ fi gaay waaye li ma li ma li ma li ma li ma li ma bëgg a wax mooy ñoom ñii sama dikk fii sama dikk fii ci réew mi ci ñoom ñi mooy bisub jaalibatu moo ba ñu doon defee savana ñoom ñi ñoo ma njëkk a yónnee bataaxal buy tax nga mën a teew ci bis bi te loola dara sababu ko dudul xasida yi ak bàyyi xel guñ bàyyi xel sëñ Amsatu Mbàkke ak nin séq kon loola ñu ah waaw ak sëñ sëñ xaarim bare na sax xañ na yàlla dogal loolu loolu rëcc ci waaye du woon noonu képp sax loolu la yàlla tudd xañ na ñeen leen lu ci ne bu jotee day yomb kon nañ xam ne ñoom ñii sunu teew fii bu nu demee bay toog fii di wax yàlla ci ñoom ñii la ko jaaree ngir jëmmi xasida yi sëñ Tuubaa yi ndax ndax ndax ndax seenu xër yi ak ak ak jàpp guñ jàpp liggéey bi ak fonk guñ ko fonk rek ay sabab bi moo tax sunu sunu sunu teewaay fii loolu mooy li ko sabab kon nag noo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ci barke mbootum xasida yi li sëñ bi fàggu ci xasida yi mbóot ma yàlla na nu singali saayir ak ci baati barke xasida yi sëñ ci bàyyi noo ngi lu bu baax a baax jërë ngeen jëf